tu bu doon làmb tey jii ñoom Ngaaka ak lu brique euh, ñooy ay Modou Lo Balla Gaye mais BMJ jii tey jii Franc Reug Reug la fëgg na seen buntu quoi yéen am seen te c'est la relève assurée bu ko cab duggul quoi tu vois te Fou Malade il a fait une euh, remarque très très très objective quoi parce que Ngaaka mi ngi naan booy lu ma kii di jéem a sous-estimer booy bi mu ne ko ah ragal naa mu nekk Boy Niang ak Balla Gaye yéen am seen remarque boobu la kii def ko euh, Fou Malade Fou Malade nag je l'aime bien quoi parce qu'il est véridique du jaay Ngaaka quoi. donc BFJ mooy loolu quoi man ce que je déplore avec la nouvelle génération mooy maanaam tey ji ay Ngaaka ay Dibé ak Akhlou-Brick ñu ngi fi bëgg a yàgg quoi te ñooñu dañu fekkoon ay Dade bi ay Gaston bousculer leen quoi donc yoon la am li moom ci game bi quoi yoo xam seen bousculer gars tey ji ba toog ci saise buur bi ba ay leen di jóge fële fii naa rek laay football du maag sa mbër mu ndaw gis ay film Euh, wax la bëgg jugee fële tàkko faal fu ñu ko aj duñ ko aji yéen booy yi ngeen toog quoi mais nekk leen ay caakaaba aji loolu ah, ñëw leen bëri final ak ngaaka daaneel ndënd bi fekk leen dip nekkul siis bi da sa sa rein dafa métti mais xoolal di jóg même boo AVC waaye yu na am seen mais booy yi kii quoi Ah, ah booy yi manqué parce que ñoom Diba Ngaaka bi ñu fi jëlee grand yi gis nga euh, Ngaaka dafa indi mixte bu dof xulóowuñu xeexu ñu jaar jaaru underground dafa affaire ruube quoi yéen am seen dib ñëw indi bés ni ki tey ruube Akhlou Brick tey ay les du Sénégal les Guèye di ñëw indi mais booy ah, bon ah, du mixte yu ay classique yu bomb bomb non non ça se passe pas quoi la relève ça tarde quoi rek relève bi dafa war ñëw.